وأعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي بوكي جولي واحلل العقدة من لساني يفقه قولي بوكي جولي تاو تسيني سيني ñi teewul ci seen jëm jëmm waaye seen xel teew ak seen xol ñu ànd ak noonu ci xarala gi ziyaara leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen ndokkeel ci bis yi muy bisi xam-xam di bisi gëstu gëstu ndono di bisi geestu sa gannaaw wolof yi dañuy wax ne nit bu xamatul fa mu jëm dafa war a dellu fa mu jóge mu mel ni jamono bi mu toll ñi daan jiitu di wone aw yoon sax dañoo gag ba xamatuñ fu ñu jëm mel nekkoon kon ne tekk taxaw geestu suñu gannaaw xool fa nu jóge woon seet nu ñuy def dana ci baax lool sëriñ abdul ahad radiallahu dafa wax ni murit dafa war a yor jikkoy ëkk te bañ a yor jikkoy xob dana wax ni jikkoy murit dafa war a yor jikkoy ëkk te bañ a yor jikkoy xob ëkk nag bu ko waxee dafa am lu muy tekki ëkk dafay dëgër fi mu nekk ba nga xam ni lu dal ci kawam dana gaañu te it ku demoon ba jubloo déjji ak ëkk it lu ci bari mbooloo ñooy jàppalante ñu am doole yor ay baaraam baaraamiin sonn ci lool loolu dafa am lu mu jubloo jàngale waaye mu ne ju murid wërta jikkoy xob xob nag mooy loo xam ne bu ngelaw ñëwee daf koy jël rek ngelaw lu ñëw rek mu ànd moom daal di te mu ne ki yor jikkoy xob ba ngelaw lu ñëw jël ko yóbbu mën na koo yóbbu ba dugal ko ci kàmb ngelaw loolee ko fa dugaloon sax bu ko fa bëggoon a génne du sotti mu mel ni loolu yi mu wax moom la sëriñ Mbay Jaxate wax ni murit bu dëggal dafay dog lëf ndelëf du ko dog day cor lëfit daldi waaxuy wéy ndelëf du ko cor mu mel ni loolu lépp dañ koo jànge ci waxi sëriñ bi rek sëriñ bi dafa wax ni wadum ala alladi law jaa akal mawtu kama xat mu ni li nga xam muy dëgg mu ni li nga xam muy dëgg nga nekk ca na nga ca way ak doonte dee daf la cay fekk waaye loolu sëriñ bi wax mu mel ni mooy tam daf ko jëlee ci wax ji yonent bi sallallahu alayhi wax ji yonent ne jullit du nekk li ñuy wax immaa immaa nag bu ñu ko waxee mooy koo xam ne al lay doon fu mbooloo mi jëm rek mu ànd ak ñoom moom la wala fii tudde ma réerandoo mu mel ni loolu yonente bi sallallahu alayhi wa wax suñu borom moo ko jëkk jàngale ci alquran ni yaa ayuha alladina amanu ida laqitum alladina kafaru ida laqitum fiatan fasbutu dafay digal jullit yi ni leen bu ngeen demee ba dajeek ab kuréel dir téye seen bopp bu dëgër te jamono bu ne ci guerre boo yi ci lañ nekk loolu daa mat di xam mat di xam ni jamono bu ne ñu ci ab guerre dafa doonoon nag geeru ngànnaay jamono bii ñu mu doon li ñuy tuddee al xaskul fikri li ñuy tuddee al xaskul fikri geeru xalaat geeru xel jamono bu ne li nga nekk am na ñooñ buñ sañoon nga dal di fay jóge nu mu gën a gaawe te bàyyi ko waaye loolu lépp sax tekkiwut ni ñooñee di la génne ci li nga nekk dañoo jàpp ni lañ nekk dafa gën ñoo jàpp ni lañ nekk dafa gën am na ñu jàpp loolu waaye ñu bari nag lañ jàpp xam nañ ni baaxul waaye li ñuy wax bukki bu lakkitaat day bëgg moroom dañuy xam ne lañ nekk wérul ñu bëgg kenn bañ a nekk ci lu wér am na ñoo xam ne noonu lañ lay jëlee ci li nag nekk te bu ca dañu nekk mu mel ni kon ak xidma maanaam Sëriñ Tuuba mooy jëf ji ci jëf yi lu ma a xam la laa ilaha nit ñi nag dañoo baaxoo bu ñuy xamle nit dañuy wax ni diw doomu diw baaxoo waaye sunu borom moom buy xamle lëf du ko xamle ci ne diw doomi diw moom bi muy xamle boppam dafa wax rekk mooy kan innaniya ana allahu laa ilaha illa ana ni man mii maa yàlla amul benn buur budul man ni man mii maa yàlla amul benn buur budul man mom bi muy xamle jëmmi boppam dafa wax rek moy kan waye bi muy jàng bi muy xamle kan moy yonente bi néwul muhammad domi diw ak diw waye dafa tuddu aw turam xol liggéey bi mu koy liggéey lo mu wër ko ci wër ko ci muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah wa ma muhammadun illa rasul Serigne Touba it bi mu ñëwee yoon woowu la jaar yoon woowu suñu borom jàngale ci alxuraan ndax alxuraan da di nu waxee. jàng baa nga bëgg amul dégg fokk da ngay bàyyi xel ni muy waxee ngay xool liñ boobu nga di ci jéem a jaar sëriñ Touba bi muy xamle boppam dafa wax moom mooy kan nu mu ko xamlee néewul de moom sëriñ Touba doomi diw la déedéet dafa wax ni Abdullahi la wa xadimu la di surgab ab yonentam صلى الله عليه وسلم يقول من ليس يزال يحمد مالكه العبد الخديم أحمد تتسود الصغار ومي واحد فوحني جام بيغا خامني دو داñ تتسود الصغار ومي واحد فوحني جام بيغا خامني دو داñ دي سانت بروم تا موي احمد دي العبد الخديم الله العبد الخديم دي احمد fii mu dikkaat ni qaala alxadimu alabdu wa huwa ahmadu wa rabbahu bila intihaa wa huwa ahmadu wa rabbahu bila intihaa in yahmadu daal ni jaam bii di liggéey yonente bi te moo di ahmad te du dañ mukk it di sant boromam mi ngi wax fee mu ne yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu xadimu man sumaatuhu muhammadu li xar baax mooy mu yaqul Abdul Xadim waaye jamono bu ne bayit ba ko wax fee bu ko waxaatee fii day maxnaa mi day doon benn ba noppi ni mu ko waxee wute loolu ci lu xar baax la ci wax sëriñ bi yaqulu man laysa yazaalu yahmadu malikahu l abdul xadimu ahmadu fii mu ni ahmadu wa rabbahu bila intihaa in yahmadu mu ni يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد لولو شي أي خبر خم لبوك موي من نكو وقفو يون وخي دي بستيا يون ويس ليدون بكو وخي دي بيستيو يون ويس ليدون وخنا من ظن أن من ظن أني غير عبد الله وغير خادم النبي فساهي كبت كما جرته ma doon kudul abdullah kudul jaamu yàlla kudul jaamu yàlla mbaa nga jorte ma kudul surga bi yonente bi rek njóom nga loo ma jorte lu dul lii rek njóomte la wax ni fustu bi kaw nii abdahu xadima sunu borom te xel na ma ci nekk gi ma nekk te ab jaamam doon it kuy taqdima di liggéeyal jaamam bii nga xam ni sunu borom daf koo jiital mu ni loolu rek ak taxale ci moom ak taxale ci man ma nekk di abdullahi doon xadimu abdihi mu del wax ni wajjahtu wajhiya ila al ilahi axdimu abdahu bna abdillahi naa ko jox ko yàlla ànd ak nag di liggéeyal jaamam bi nga xam ni mooy ibnu abdillah naawiya nafi aqrabin wa ajnabi waaye nag ma yéene cee jariñ ku ma jege ak ab jàmbur bu ma sori مع الحديث وأجل الكتب وحنا يرضيه بالذي كخدمتي بدا نفيت ظنه بأني الخديم بما ونا هم مثله كل خدم فهم لم وفه موي كجرت نغنه من نغا كو ليغي الفاسون ليغي بو ملني بي ماكو ليغي سا نجرت لي جرت داخناكو خمال كيب كو ديكو ليغي لك لوتو نغا سي لك lu mata xam la loy xam ko lu am solo fi mu ñëw ñaanam gep it mu teunk ko ci bëgg doon loolu muy wax wajjah li allahumma fawqa ma urid al-barri wal-bahri al-marid hatta urid المريض حتى أريد في البر والبحر al-marid hatta akuna khayra 'abdin wa khadim mun yalla yalla nak ma may lu kawé limay bëgg ci jéri ji ak ci géej gi te musal ma ci seytaane ndax ma mën a doon sab jaam di liggéeyal yonent bi li muy ñaan lépp lépp li muy ñaan lépp lépp mooy naa doon jaamu bu yàlla di liggéeyal yonent bi kon dafa mel ni moom bi muy bëgg doon jaamu bu yàlla bëgg di liggéeyal yonent bi amul dara lu mu tex ci gannaaw loola loolu mooy def hadaf bi loolu mooy li gën a rëy ci lu mu soxla mooy nekk jaamu bu yàlla nekk xadimu rasul xaj na ñun am ñu nu jiitu woon ci talibe gi ba muy naqari ñu nekkoon ci far yàlla dogal ay bànneex yu rëy fekk leen ci léegi di loolu xasee am nit mën naa ñëw bëgg a doon talib Sëñ Tuubaa waaye sëg mën naa am garanté na loolu waroon a garanté ndax kooka ba muy ñëw di soobu si amul lenn lu mu teg ci kanamam lu dul bëgg ngërëmul yàlla ak fas yéene dar teraanga yi àdduna fekk leen ci mën naa am nit ñëw di dugg si ngir teraanga jooju te bu boobaa bi yéene ji sellul lu bari de daal yàqu ci la ko tax na jóg waaye sëriñ bi yéene mooy nekk jaamu yàlla di xadimu rasul amul lu nekk ci kanam dara newul ci kanam moo tax sëriñ bi doon na waxtaan ak murid yi ni leen man de nit ñi dañu ma bett ma wëlbati ko bett leen ñu wëlbati ko bettaat ma ma wëlbati ko bettaat leen te dootuñu ma bett bu ma ko daal di wax ne la ma bette mooy ba may jóg di jëm ci sama borom séentuwuma woon picc topp ma óoma lu may geesu gis mbooloo ci sama gannaaw waaye itam may itam may itam la ma leen bette mooy ba ñu may topp yaakaaruñu woon fepp àdduna ma bett leen may topp yaakaaruñu woon fepp àdduna ma bett leen ak àdduna ju mat sëkk joo xam duñ ko wuti fenn daani waaye ñoom itam la ñu ma bettewaat nag mooy dañoo yam ca àdduna joojee ba fàtte yàlla ma leen taxoon a jóg daani waaye may tam la ma leen di bettewaat di mooy dootuma seexal kenn di ko tofal mbooloo waaye ku jub kenn di ko tofal mbooloo waaye ku ma ne ci sa jiba ku jub rek ma ne ci sa jiba foofu la mujj def ceex gi hmm. ku jub ma ne ci sa jiba ba tey buñ xoolee dundam bépp nekk abdullahi nekk xatim rasulillah kasbiya tawxidun wa matxun linnabi li ma waxoon léegi ni abdullahi dafay wund rek laa ilaha illa allahu naa leera ci bayit bi ma wax ne kasbiya tawxidun wa matxun linnabi alayhi taslima mooy tawxid wéetal yàlla ginnaaw bi ma ko wéetalee ba yàlla di yàlla tagg yonente bi ñaareelu tànk da loolu wax ne diine ya tawxiidu ilaahi sama diine mooy wéetal borom nit ñi bi sunnatil maahi borom nit ñi bi sunnatil maahi ànd ak sunna kon mboolem xasida yi mu bind lépp génnul ñaari baat yooyu muy baatub la ilaha illa allahu محمد رسول الله أهو محمد رسول الله تلي نيو ديكو فيريسي تي جيف موي نيك عبد الله نيك خديم رسول الله موتاخ دانكا خسي دغوم دون بوكو تامبلي بني بسم الله الرحمن الرحيم ني الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام لجي تك جولي تيانت سا بو ني بو سانتي يالا رك جولي تيانت لجي تك من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم daal ni ahmadu rabbi al azim ala kitaabihi al azim nu yarim musalliyan la ca li ma jublu wax lépp rek mooy saabu saabu sant yàlla rek dafay dal di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci saas ba bu ñu xoolee xaside yi xaside goo xool rek dafay amee maanaam laa ilaha illa allahu mbaa mu amee maanaam muhammadun rasulullah am na xaside gum tënkee min allawhil mahfuz من اللوح المحفوظ واي خسيت غوغو بوكو خولي لب دفع ابي مهنم لا اله الا الله نيغي تاملي سي مني لمن له الوجود والقدم حمد وشكر وتقبل الخدم تسن مدلمين جوب دغنا لي ناتلي سي سي إيه، من المسكية مسكية في الخوارق المكية دي واخني بن بس دما نك سي برب بين دون بنده di xalaat munkar ak nakiir di xalaat seen tontu ba def ci bayit woo xam ne sax dama ko def ci sama xel waaye génnewuma ko bayit mooy dama wax ci sama xel ni in ataani fi turbatil malakaani muy aka neexoon ma xam lan laay tontu su ma demee ba dugg ci sama biir bàmmeel ñaari malaayka yooyu fekk na fa aka neexoon ma xam la may tontu dafa wax ne dama xalaat di leen xalaat di leen xalaat ba def bayit woowu ci sama xel neena na mi ngi taw taw bi la la ndaw xuus ñëw ni sëriñ bi neena dafa soxla kenn ci yéen neena na bi mu ko waxee ka ak buntu ba rek moo jóg dem wujji neena na sëriñ bi jox ko xasida gi mu tënkee min allahil mahfuz ni ko lii mooy tontul ñaari malaayika yi ci bàmmeel waaw nga xam ne tontul xel loolu waaye li ma jublu wax mooy ba ci waaye li ma jublu wax mooy ba ci xasida yi bu ci amewul maanaam laa ilaha illallah dafay amee maanaam muhammadun rasulullah xasida googu mu tënke min allahi almahfuz dafa am geneen geneen gum tënke min allahi bi iznihi lii léegi mi ngi ko tàmbalee ci léegi mi ngi ko tàmbalee ci muhammadun salla alayhi llah maanaam xasida googu dafa amee maanaam muhammadun rasulullah ñu tolloo nett nag min allahi almahfuz bi ami maanaam laa ilaha illallahu gee ami maanaam muhammadun rasulullah léegi mu seexale leen bu ci ne fukki bayit la ak ñeent am muhammadun rasulullah léegi mu seexale leen bu ci ne fukki bayit la ak ñeent daanaka sax xasida yépp noo lay demee lu ci lu loo ci xool rek dafay ami maanaam laa ilaha illallahu mbaa mu ami maanaam muhammadun rasulullah mu mel ni kon nekk gim nekk abdullah wa xadim rasulihi lépp lu nu gis ñun ci ay may yu ko suñu borom may ci ñaari garab yooyu la meññ lépp lu nuy séentu ëllëg ci ak ramoom ak njariñam ëllëg ak yaakaar gu ñu fi yaakaar lépp lañu ciy séentu rek meññatum garab ñaari garab yooyu ci la meññe ni nga xamee ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mii wasilaam lépp luy njariñ lu mu andi ci àdduna lépp luy njariñ lu ñu séntu ci moom ëllëg mu ngi bàyyi ko ci nekk gu nekk muhammad nekk gum nekk rasulullah abdullahi wa rasuluhu nekk gum nekk di jaamu yàlla di ab di ndawam luñu séntu ci sëriñ Tuubaa ci ñaari baat yi la bàyyi ko muy nekk abdullahi nekk it xadimu rasulillah bi loolu amee nag mu fab lépp lépp léppam rek tënku ci ñaari baat yooyu kon war nañoo jàngat lan mooy eh, ibaadatu googu kon war nañoo jàngat lan mooy eh, ibaadatu googu mu jublu junj jaamu jaamu yàlla googu alhamdulilahi lan la ak lan mooy xadim rasulullah ak ñu seet ñun nan lanu ci jariñoo ñun ginnaaw bu sëriñ bi doonee lam doon ba noppee nun ñu ñëw di ay taalibeem te li mu am lépp fii la ko jële léegi nun ko nan la ñuy def nan la def lan mooy loolu ak nan lañ cee doxe loolu lu ma taxam la mu mel ni kon abdullahi mi ngi baat bi mi ngi joge ci al ibada ibada nag mooy jaamu yàlla jaamu yàlla mooy dayo bi tax suñu borom bind mbindee fi mooy na wal insa illa li ya'budun binduma nit ak jinne ndare ngir bëgguñu jaamu ma mu mel ni kon jaamu googu jamono bu ne nit ki bi mu amee tawféexi gëm suñu borom war nay gëstu jaamu googu mooy lan ak nan la koy defe mokk gu mat sëkk moom la ñu tuddee al ibaada mokk am na benn borom xam bu ñuy wax a az seri wax na ne jaamu mooy troxlu gu mat sëkk yemukaayu toroxlu moo tax eh, ci jaamu yàlla rek la jëfandikoo baatu bi ibaada ndax mooy toroxlu gu mat sëkk. al ibaada taatun tawiya ak ak topp lay doon goo xam ni dangay ngay bi nga koy def mamzujatun bi mahabbatin qalbiya waaye bi nga koy defit dafay ànd ak nga bëgg ko ci sa ba ci jaamu goo xam ni coobareewoo nga xam ne du du du dañu da caa forcé lu mel ni loi bu état bi tëral rek ni def leen lii ku ko deful police nga ne taxaw nga di ko def loolu du façon jaamu gi gi ñu bëgg jaam bi doxalee ko diggante ma borom day bëgg mu doon loo xam da ngay coobarew dañ la koy wax day bëgg mu doon loo xam da ngay coobarew dañ la koy wax bàyyi la nga dem libar nga tëju sa kër tëju sa néeg ak yàlla képp ngeen nekk fa nga def ko ci coobarew ak jaamu jaamu yàlla gi suñu borom bëgg ci coobarew mooy loo xam ni du caageen sax da nga ngay wax ni nit ñaa ngi ni su ma ko deful kii amoon na maa jàpp ni mbaa su deful lii mbaa su deful laa am loolu looy xalaat ci am loo ci ragal loolu sax boobaa du du du coobarewu fi mu toll nii coobarewu dëgg nit ñëpp buñu maase woon bàyyi it yow da ngay continuer dox buñu maase woon bàyyi it yow ko da ngay continuer dox loolu mooy al ibada taatun tawiya mamzujatun bi mahabbatin qalbi te li koy li koy fonde it mooy xam ak xam koy fonde waaye ba ci bu fekkee ne sax léegi dafa am ku jiitu rek ñëw leen ñëpp gëmu topp ci am sax loolu di ko tuddee ibaada jaamu yàlla gisuñu borom bëgg duggoo ko duggoo xam da ngay gurgur nit ñi rek ne aji dem leen dem leen julli ñu dem julli ji dem leen woor ñu dem woor di xamal lan mooy julli lan mooy woor jaamu yàlla gu nga xamal ko la muy tekki ba mu gëm ko ci xolam bëggal ko boppam daal dem boo defee saa bu demee ba wéet di ko def rek mi ngi jaamu yàlla loolu mooy asasuha maarifatun yaqini kon ñett yooyu ñooy dëgg dëgg jaamu giñ soxla muy ak topp lay doon goo xam ni dangaa coobarewu di ko toppe waaye ak topp lay doon goo xam ni dangaa coobarewu di ko toppe waaye kenn forcéwu la ci bi nga koy def danga ci am bànneexu xol boo koy def mu naqari la du jaamu yàlla ga ca des la ca desin mooy ak xama koy lal waaye du doon loo xam dañ lay gurgur rek ni la gëmal def ko nga gëmu di ko def ni gëmal def ko di ko def ñett yooyu saabu bu manqué rek jàmm gi manqué na sëriñ bi sëñ Saliou wax na um, benn bis ñuy waxtaan ma di ko sant ci liggéeyub sëriñ Touba bi ma woo mu ni ma sëb cër daf cee nekk ndax mbaa boo ci yëngutu yi du ko neex waaye saa boo ciy yëngutu ba noppi mu neex la na nga xam ne sëb cër ci nekk loolu kon wax na ma ko waaye murid yëpp ko moom waaw muy ko ca ab cëram nekkul du ci yëngutu mbaa bu ca yëngutu it du ko neex waaye saa boo ciy yëngatu ba noppi mu neex la na xam ne da nga ci amub cër jaamu di maqaama mu kawe moo xam ni tabaa ngay tabaa bi ndax ndax ci misaal rek saa buñ ne kii nanga mu sëriñ Saliou la saa buñ ne kii nanga mu sëriñ Saliou buñ ne kii doomi sëriñ Tuubaa waaye ñu ne kii mooy bëkk néegu Sëriñ Tuubaa bi sës ci moom ñu ne kii mooy na na nangamu Sëriñ Tuubaa bu ñu wax rek kooku terangale ci jëmm jooju moo tax nit ki saa bu fabee boppam wéer ko ci yàlla ñu ne Abdullahi la léegi teranga féetewul kaw loolu féetewul kaw nga doon jaamu bi yàlla te loolu misaal mi ci kenn du misaal yàlla dara waaye misaal mi ñu ci jox rek mooy président ku ne xam ne ni mu toll waaye nangamu président bi sës ci moom rëkk rek am na lu muy tekki am muy tekki ak foo nit ñi teg ci seeni xol ak yëg bu ñu ci am ca saase buñ ne kii nangamu président bi la musa si moom abdullahi laajub la wax ni buñ ko waxee nit ki wéer jëmmam ci yàlla rek teraanga féetewul kaw la moo tax xam ne benn benn sofi bu wax suñ borom ni ko laa tad'uni illa bi yaa abdu bu ma wooyee ludul ni ma ya abdu xaafena tedd ji samay tur mooy nga di ma yaa abdu borom xam-xam yi di wax ne yonent bi maqaama yi gën a tedd ci ay maqaamam baatub abdu la ko fi suñu borom wooye ndax ñetti maqaamaa ngi nii yoo xam ne bu ci ne maqaam bu rëy la mooy bi muy wàccee alquran ci moom ala abdihi alkitab foofu abdu la ko fi tudde bi mooy bi mu ko jëlee muy rañaan rañaan ki nga xam ne bi mu demee ci la ko jox julli yi gën a julli juróom te mooy li mu gën a fonk ci jaamu yàlla yi ginnaaw boo seeree ñaari baat yi foofu subhaanalladi asra bi abdihi la ko ba ca des mooy fi yonente bi taxawee des mooy fi bi taxawee di ñaan yàlla mu ni fa innahu wa innahu lamma qaama abdullahi yad'u ñu ni maqaama yooyu ñu yi gën a kawe ci diggante yàlla ak yonente bi te foofu habdu la ko fi yàlla wooye kon ñu xam baatub abdullahi li muy tekki kon ñu xam baatub abdullahi li muy tekki wa xadimu rasuli lu ci ne rek maqaam mu kawe la mooy wéeru gi mu wéeru ci yàlla maqaam mu kawe la wa xadimu rasulihi bi maqaam mu kawe la ci ñaari misaal misaal yi ma joxoon léegi ni bu ko defee nag jaamu jaamu kooku nag bala mu mën a am wala boog sax mu ngi tàmbulee ci pas-pasu xol nga gëm nekkug yàlla gëm ak wéetam gëm kàttanam gëm ak mënam gëm wër ni mooy wërsëgal nit ñi gëm ni moo leen di xañ gëm ni moom rek a mënal ñëpp aajo woon nañ jëm ci moom tamu ayiwul jëm ci kenn al uluhiya li muy tekk mooy koo xam ni ñëpp ittewoon nañ ko tamu ittewul kenn ci yàlla képp la kon ngëm ci tawhid nag bu ko waxee wommatu lay tekki wommatu mooy dangaa ñëw ci société bi déposé dossier yi bañ ni la jël nañ la nga ni d'accord waaye nag doxagoo meetar ndax tàmbali goo liggéey léegi nag dañ lay rëddal ni la defal lii nga di ca xëy loolu mooy islam fokk bi nga ñëwee ni laa ilaha illallah loolu mooy bi nga ñëwee ni laa ilaha illallah muhammadun rasulullah dafa am lu ay wax la waaye jëfagoo ko jëf ja nag mooy la mu la rëddal ni la jaaral fii nga dem di ca xëy di ca gontu moo tax am na ku ñëw ci sëriñ bi ne dafa ñëw ngir jébbalu si sëriñ bi ne ko ana jublu mu ne ko xanaa nag bëgg laa jébbal sama bopp rek loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko bi ne nañu ma woo fere fere yi fi nekk ñu ñëw ñu woo ñu woo ña fa teewoon ci ay murid yëpp ñu teew mu ko waxaatal li nga waxoon mu ko damaa wax ne damaa ñëw ngir jébbale sama bopp loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko boo ko waxee dégg nanu ko boo ko jëfee jàpp nanu ko kon liimaan ay wax la waaye lislaam moo koy firndeel léegi ibaada gi ñu doon wax rek laa jublu mu leer ci lan mooy abdullahi wa xadim rasuli ñu xam ni liimaan moo ci jëkk liimaan moo ci jëkk ay wax la ak pas-pasu xol da ko fas ci sa xol wax ci sa làmmiñ waaye dafa am lu koy firndeel nag la koy firndeel mooy lislaam loolu sëriñ bi wax ni dama bëgg nga xam ne jëbblu ay wax la boo ko waxee dégg nanu ko boo ko jëfee jàpp nanu ko lixsaan mooy martaba lixsaan mooy martaba bi bi ci gën a kawe mooy ñaar yooyu nga rafetal leen liimaan gi na rafet lislaam gi it rafet loolu la ñuy tuddee ihsaan ñetti tomb yooyu ñooy arkaanu diin ñett yooyu la sëriñ bi taalif taalifi tereem boobu ñu du sixaar bu ci ne mu mu ihsaan boobu nga xam ne nag maanaam ci la tasawuf di dund yan bi ba mu koy xamle ba ñu ko waxee ne lan mooy al ihsaan dafa ni mooy ngay jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom ngay jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom ku ne xam na ni dama daan wax ni jamono bu ne eh, nit ñi lu ñu def ñoo ko tey ndax ci misaal ab daayira bu masaan jóge Ndakaaru jëm si Sëñ Saliou jigéen ñi dañuy muur doon ay jullit yu kenn du naatable te lu ci ëpp bu ñu weesuwaatee njaaram dindi muuraay seetloo nga xam ni kon day mel ni loolu li sëñ bay jaxate wax naan dafa lot daal kenn réeratul tey ngir ma ñépp ko xam bu wér koo gis doxul dafa jox mbiram seytaane daal loolu yi mooy li waaw waaye daanaka li yàlla soxla nii jullit bi bu xasee ñëw ba ni ab jullit la rek ñor ci lu mu soxla xam na ko la gën a ñor ci lu yàlla soxla doon ab jullit la na ko xam ci saa si léegi nag ihsaan mooy ngay jaamu yàlla mel ni yaa ngi jàkkaarloo ak mooy loolu yi ma waxoon léegi ne bu ñuy jógee Ndakaaru jëm si Touba xam ni jëmmi Serigne Saliou la ñuy jàkkaarlool waa doomi Serigne Touba dañuy daal di mel noo xam waa doomi Serigne Touba dañuy daal di mel noo xamante ni jullit dëgg maam benn xebet du ko mën a xebet ñoom ndax nañ julli war a mel dañ koy mel melukaan woowu nag lañ soxla jaam bi di ko doxale digganteem ak boroomam fa mu toll bu ko defee nag bu ko defee nag boo gisee al ihsaan ñu dugal ko ci buntu tasawuf wala boog ahlu tasawuf wax ne al ihsaan tasawuf ko représenté mooy jaamu yàlla gu ne dafa am farata waaye dafa am sunna dafa am farata am loo xam dañ ko sopp rek ni ni julli amee farata fa am julli yoo xam ne sunna la léegi nag ki nga xam ne moo bëgg doon abdullahi wa xadimu rasulihi xay abdullahi dëgg dëgg dëgg farata yi moom kenn waxale ko dafa ndax alquran dafa xaaj nit ñi ñetti cër am na ci ko ñu wax zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum saabiqum bil xayraati bi isnillah faam koo xam ne moom dafa wàcc aw yoon ndax dafa wàcc aw yoon ndax la ko suñu borom digal defu ci dara lam koy tere it ma nga koy def kooku zalimul nafsi la boppam la toj muqtasid mooy koo xam ni suñu borom dafa digle ay farata am ay nawaafil yi nekk ca pegg ba mu am yu mu araamal am yoo xam nawaafil yi nekk ca pegg ba mu am yu mu araamal am yoo xam daf ko sib ca pegg ba ki nga xam nag daa yam ci di def li li li li war ci moom la ñu araamal it mu bàyyi ko yam ci kooku mooy muqtasid nga xam ne xaj na lenn ci nawaafil yi dana ko def lenn ci dana ko def kooku mooy muqtasid saabiqum bil xayraat bi isnillahi nag mooy fii sëriñ bi nekkoon mooy koo xam ne muharramaat yëpp daf ko bàyyi waajibaat yëpp mu di ko def makruhaat yëpp mu bàyyi ko di def mandoobaat yi boole yi ñu farataal ci yow nga di ko def ya ñu sopp nga di ko def ya ñu araamal yépp nga bàyyi ko ak ya ñu sib foofu la sëriñ bi nekkoon ndax bind na ni musumaa tooñ yàlla musumaa tooñ hmm. kon jaamu gu dafa am farata am sunna ni mu amee ci julli noonu la amee ci koor amee ko ci asaka koor am na koorug farat ko ci asaka koor am na koorug farat am koor gu ñuy tudde koorug ngàtt nga asaka ab sarax la ni mu doone farata noonu la amee ay sarax yoo xam ni dañ ko sopp ci nit ki rek mu di ko yooyu yëpp nag dañuy bëgg nit ki ba doon farat nag yooyu yëpp nag dañuy bëgg nit ki ba doon farat sax moom na ko jiital fexe ba aw fépp du ci manqué mu seet nag nu mu ci dollee yee dañuy bëgg nit ki ya suñu borom araamal ci moom mu moytu ko définitif ba noppi nag ya nga xam ne dañ koo sibit mu muy seet nu mu ko jam moytu أحيانا تبدأون أحيانا تبدأون الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ فمن اتقى الشبهات فقد فقد استبرأ لدينه وعرضه wa man waqaa fi subuhaati waqaa fi lxaram karraaci yarca xawla alxima yuusiku an yartaca fiih ala wa inna li kulli malikin ximan ala wa xarimu yéen dafa waxoon ni li lew lu leer naññi la li araamet lu leer naññi la dafa am nag yu lënt yu nekk ci diggante bi yoo xam ne nit ki day naatal ba xam dagan na wala araam na mun yooyu ku bëgg a setal sa diine ak sa def da nga fa da nga fa bàyyi yooyu ba ci yi sax boo bëggee setal sa diine ak sa der da nga ko fay bàyyi ndax boo ca xasee tab bi ci yu lënt yi nag boo ca sàmmee boo yeexee dana dugg ci biir tool bi doo ko yëg daal ni te nag buur bu ne am na dig wu mu rëdd ne bu ko kenn jegi te yàlla aw digam wi mu rëdd ne bu ko kenn jegi mooy yim araamal wa inna himallahi mahaarimu kon loolu ma tudd léegi muy julli ak woor muy julli ak woor ak sikkar ak ak aj ak yu ñu demee loolu la ñuy tuddee jaamu yàlla gi nga xam ni ibaada shaa'iriyya lañ koy tudde loolu mooy jaamu gi dox diggante nit ki ak boromam mu des geneen jaamu muy ibaada taamuliya muy ibaada taamuliya muy jaamu yàlla goo xam ni jaamu yàlla jëflante la bu war dox diggante nit ki ak i moroom yépp nag dañ koy soxla ci nit ki ngir mu nekk abdullahi day bàyyi xel jaamu gi dox digganteem ak boromam nga xam ne julli la benn intérêt doomu aadama néew si ak jaamu gi dox digganteem ak ay moroom asaka moo ci jëkk sarxe di leen dimbale ba noppi nag saw ayit ñu mucc ci façon jaam ñaari jaamu yàlla yooyu yooyu moom da ngay jiital benn nag teg ci bi te ñaar yëpp daa war a dox nit ki dooga mën a doon abdoulahi xaqan kon jaamu yàlla gi dox diggante nit ki ak boroomam muy julleeg woor sikkar ak di xalaat ak yone deme demee yooyu dafay defar jikko dafay defar jikko di defar ak ruux di sellal bakkan ba nit ki mën a di sellal bakkan ba nit ki mën a àgg ci daraja yu kawe yi ñu soxla ci jëflante bu rafet ak jikkoo jikko yu rafet te mooy am yërmande ci nit ñi am ak ñeewante ci ñoom li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko nit ñi nooy moo ko sa diggante nooy moo ko sa diggante ak ñoom ndax doomu aadama dafa baaxoo dafa am sax ci jikkoy doomu aadama rek rëy ndax loolu nit dañ ko bind ci suuf suuf dafa diis ñu bind ko it ci wolug ruu ruu ak leer la goo xamante ne suñu moo xam ne am waaye daraja ak ay xëccoom ak i bañanteem ak xeex ya ak xuloo yépp ni ci cëru suuf boobu ci la bàyyi ko loolu lépp nag nit di di di bu jaaree ci jaamu yàlla yële mooy setal ak ruuxam sellal ko ba nga xam ni jëmm ji dana mën a woyof ba liñ bëgg ci moom ci ay jikko man ko ci ay jëflante yu rafet muy am nit ki bu taqoog yàlla dëgg ci julli ak woor ak sarxe ak def yu baax yooyu dana mujj jikkoo jikko jooju bu koy def sax du ko tey dana mujj am ak ñeewant dana mujj bëgg nit ñi lu baax dana mujj woyof dana mujj it am wor ma ñëpp ci ñëpp wormaal leen ngir ñëpp yàlla lay xool ci ñoom lay xool ci ñoom wor wormaal ñëpp ngir ñëpp yàlla lay xool ci ñoom ñëpp ngir ñëpp yàlla lay xool ci ñoom di jokk bokk jokk bokk te mooy daanaka mën nañ koo tënk ci ñaari tomb yooyu mooy nit ki di am naqar di am bànneex bu amee bànneex nga ndokkeel ko boo amee di am naqar di am bànneex boo amee bànneex nga ndokkeel ko boo amee aw naqar nga defal ko lu mu doon rek nga ànd caag moom solidarité boobu waaye loolu nag la koy may nit ki ba mu ba mu def ko dëgg dëgg fonk yee moo koy may ñaar jaamu yàlla yi dox diggante nit ki ak borom yooyu yooyu la fi yonente yi andi loolu mooy li yonente yi dimbalante nit ñi fab sa mbooleem euh, kattan yi nga am ak doole yi def ko ci lu lay may ngërëmul yàlla loolu li tax nga man ko li tax nga man ko mooy sóobu jaamu yàlla yee ma tuddoon léegi loolu yi nag mooy yoonu Sëriñ Tuubaa muy jaamu yàlla képp tax nga di ko def goo xam ne dara raxu ci yàlla képp tax nga di ko def di sikar te dara raxu ci yàlla képp tax nga di def sikar nag na ngeen xam ni bari na ku mën a yor kurus fanaane yor bu bët set te yàlla taxul mu di def ndax nit ñuy làqar ci ay projet ci zahir noonu lañ ko nit ñi di làqar ci ci baatin waaw di yor ay course di wérde waaye fekk loolu daa mën a am baax a baax am na benn waaye boo xam ne man damaa jaaxle ko am man damay jàng alxuraan di bëri di sikkar lu bëri di jàng xasida lu bari waaye yëguma daal lu ma lu mu def ci man nii jamono bu ne maanaam business bi ma daan def tappale tàppale ak fenn moom ma tey daa gën a man waaye mu mel ni kon dafa mel ni ba koy def am na lu ko lu mu lal ca suuf rek waaw lu mu la ci yu mel noonu suñ suñ tubaab nag ak jaamu yàlla jaamu yàlla gu set wecc la gu dara raxut waaw te rax dafa mën naa am ci lu mën a doon lu mën a doon rek ab rax da caa mën a am waaw sëriñ tuba yoon wi mu jaaroon moom daf ko leer moom mooy maqaamaatul yaqin jaaroon moom daf ko leer moom mooy maqaamaatul yaqin yi yi ahlu tasawuf tudd wax ni balaa kenn mën a doon jaamu yàlla dëgg àgg ca fañ soxla ci ak ngëm jaamu yàlla dëgg àgg ca fañ soxla ci ak day jaar ci étape yi ñu tuddee ko maqaamaat yi mooy tuub tuub moo ci jëkk tuub nag li muy tekk mooy dellu ci yàlla dellu ci yàlla nga xam ni day am jamono boo xam ne nga fay bàyyi nag na yaag projet yaag da nga daan lijjante ak yëpp nii saxel ñëpp nga jox ko yàlla dellu baax na donte donte la sax yoo def noonu xewuñ ko waaw waaye tuub lay wa inni ñaareel ba it saa boo wàccee yoon wi shaytaanir rajiim te jamono bu ne nit ki fu mu toll mi ngi wàcc yoon wi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kullu ibn aadama xataa wa xayrul xataa'iina at-tawwaabuun wa a'uudu bika rabbi danañ ci xadisul xudsi yi boo xam ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy xadisul xudsi yi nga xam ne day doon wax yi sunu borom ba noppi jaar ci lamiñ yonent bi يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ربي أعوذ بك من وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وأعوذ بك ربي أن يحضروا لما أرى ملتون الشياطين لما أرى ملتون كسم بب دفتون tooñ it mu araam ci seen diggante ku يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني ne wax ni yéen sama jaam yéen ñëpp réer ba mu des ki ma gindi kon sàkku leen ci man ak gindi ku ma gindi leen bokki julit ki ma gindi kon sàkku leen ci man ak gindi ku ma gindi leen yaa ibaadi kullukum daa'iun illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum mooy yéen ñëpp a xiif ba mu des ku ma lele ku ma jox rek kon sàkku leen ci man ma lele leen yaa ibaadi kullukum aadin yéen ñëpp a rafle ba mu des ki ma waddu fastak suuni ak suuf kon sàkku leen ci man ko daay ma waddu leen yaa ibaadi innakum tuxtiuuna billeyli wannahaari wa ana aghfiru zunuba jamian fastaghfiruuni aghfir lakum mu wax ni yéen sama jaam ci may jégle bàkkaar yëpp kon sàkku leen ci man ak njëgal ma jégal leen yaa ibaadi innakum lan tablugu naf'i fa tanfa'uni wa lan tablugu durri fa tadurruni yàlla ni bu ngeen may jaamu amaluma benn njariñ ndax sama njariñ jotu leen ko di ma jariñ bu ngeen ma moyee it seen bopp ngeen koy teg ndax sama yi law anna awalakum wa axirakum wa insakum wa jinnakum kaanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zaada dalika fi mulki shay mu yéen jaam ñi ñi jëkk ci yéen ak ña ci mujj ñi ci doon ay nit ak ña ci doon ay jinne buñ maase woon di ma gën a ragal ñëpp yor xol yonente bi ci ragal lu tax sama nguur dara يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا من ينسى جام من جك تيانا يتمجو نيتي دون اي نتاني نيتي دون اي جيني بوني ماسي وون غنا كاتشوري ني خولب كي غنا كاتشوري سي جام موي ابليس لو دال سي كاوم دو واني سي سما نغور دارا طيب، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخية إذا أدخل البحر من يجك شيئا مجو ñi ci doon nit ak ñi ci doon ay jinne bu ñu maas na place kenn ku ne xool la mébét lépp mu ñaan ma ko ku ne lam xalaat ba ñaan ma ko ma jox ko ko it du wàññi ci li ma yor lu dul lu mel ni puso boo dugaloon ci ak géej génne da ca toq rek noonu képp lay mel mu doole ci yaa ibaadi innamaa hiya amalukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyaha lépp lu ma leen jox rek seeni jëf la dama leen koy téyal rek wa moom wajada xayra dalika fala yeloo mën na illa nas mu mel ni loolu lépp lu baax loo gis xam ne yaa ko lu bon lu muy lu muy lu muy fab law jaa akal waaye nit ki mooy def lu ñaaw suñu borom ba mu amul fu mu ko denc ni ko seen blaat wax mu denc mu ko moo tax boo ko delloo ko denc moo tax dala koy delloo نغا تا واي فليحمد الله ومن وجد خير ذلك واي لولو سيرن الا نفسه سيرن توبا دان توب الله عليه وسلم سيرن توبا دان توب عليه وسلم واخ دي توب با اغ تي دم توب غوغو سا داف كاي توب سيرن دو توب لي نيو دان داف كاي توب اما اما انك بنج كو واخ ني ايقنت بالظفر بالاجابه خامني التوبي لي دون ثم له ثم له بالانابه حتى lahu atuubu min mataabi mu mel ni ah. loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku ci tuub dafa doon lu baax ci alquran boo tuubee yëg yëg ba ngay am ci ne def naa lu baax képp loolu leen suñ tubaat tubaat ida laqitum yëg ne def naa lu baax rek muy tuubaat léegi yëg ida laqitum fi atam ne xataa lahu atuub min mataabi ba ci sama tuub sax maa ngi koy tuub fay digal julli yi ne leen bu ngeen demee ba dajeeg ab kuréel ak jër te yéen nga doon jaamu yàlla ndax suñu borom ay dogalam te jamono bu ne nit tuut na ci guerre boobu yi ci lañ nekk. lu ko neex lay def te xam ni. lii tubaab yi tudd démocratie nag neel demee naal de loolu dafa doon yàlla nekkul foofu de yàlla ay nekkul jamono lu ma neex laay def leen fa xaalun li ma yuridu al li ñuy tuddee al xaskul ah. fikri ginnaaw nag lu ko neex lay def guerru xalaat jaam bi li ñu soxla ci moom foofu mooy bu defee li nga nekk nga muñ ko am na ñooñ buñ sañoon nga dal bay daaw lu mu gën a gaaw bu defee lu la neex lépp sax tekkiwut ni kañ di la génne ci li nga nekk dañoo jàpp ni lañ nekk dafa gën lañ nekk dafa gën xam ni yëg nga na ñu jàpp waaye ñu bari nag lañ jàpp xam ne ni baaxul li ñuy wax bu lakkitaat day bëgg sëriñ bi ñett yooyu muñ dañuy xam ne lañ nekk wéru mu bëgg nekk ci lu wér nga sant ko am na ñu dogalee lu la naqari jëlee ci li nga la ca des mooy jaami yàlla yi nga xam ni da ngay jaxasoo foog nga muñ ak xidma maanaam sëriñ bi daan wax ne mm-hmm. Tuubaa mooy bu ñu ci tooñee te na nga muñ loolu lu ma tax ndax nit bu ñu ko tooñee mu muñ suñu borom dana ko fayul fay ko Muhammad daan wax ne xam ngeen fu ma leen naxee ñu ne ko ah mun leen dañu maa tooñ nit ñi nag dañoo baaxoo bu ñuy xamle nit kuñ ci tooñee dañuy wax ne diw doomu diw daana fekk sax béréb bu ñu war a muñee waaye sunu borom béréb bu metti lay doon moom buy xamle te cant gi ci nit damay wax nag diw nit moom bi muy xamle boppam mën nañu ko déglu rek mooy kan ngi sant yàlla waaye cant gi lay wax innaniya ana allah boo demoon ci biir da nga xam waaye sëriñ bi nag li xar baax mooy béréb bu ñu war a muñi mu def ci li suñ borom ma yàlla amul benn buur bu dul man nga am ca yàq bi muy xamle jëmmi boppam dafa wax rek ba far dootoo gisati coono bi waaye fay ga ngay xool waaye bi muy jàng bi muy xamle kan mooy yonent bi moo war a néewul moo mën a waral nit Muhammad doomi diw ak diw waaye dafa am tudd aw turam خال لجي بمكوي لجي له مويركوت الذين ويركوت راجعون أولئك عليهم صلاة ربهم ورحمة رسول الله يجي على دقي نعم أمتي يقين موي ورا محمد ولين جاي من غفرسنا رسول الله وما محمد إلا رسول ودي كان تجيت دفعه نشخال سرين توبا يدنيه yoon woowi la jaar yoon woowu sun borom jàng li ci alquran ndax alquran amul place njàmbat moom sëriñ dañ num waxe jàng ba nga bëgg amul dégg fokk da ngay bàyyi xel ni muy waxee lépp lu muy waxtaan ci hadith ci ci xasida yi ci ay Tuba yu ko sun borom def bi muy xamle bopam du jublu ci ndam waye sant sun borom la ndax yàlla mo xamle néewul de amma bi rabbi mom Serigne Touba domi diw la def la ci Abdullah liñ bi jaar mo ba nekk Abdullah ak tant la ci ci surga ab yonent liñ bi jaar mo ba nekk Abdullah wa Xadim Rasul ya ci gëna fess lay lay wax lay man laysa yazaalu yahmadu malikahu al abdul xadimu ahmadu ca tasawudu siraar ba muy wax dafa wax ni jaam nga xam ne du dañ ci loolu la leen ba muy wax dafa wax ni muy xéewal jaam bii nga xam ne du dañ la sant boroom te mooy ahmad di al abdul xadim xarit lii nga am la waxe al abdul xadim doo doy la lii dégg ko fii mu dikkaat ni qaala al xadimu al abdu wa huwa ahmadu wa rabbahu bilantihaa wa huwa ahmadu wa rabbahu bilantihaa'in da ñàkkul lu muy nemiku daal ni jaam bii di liggéey yonente bi te moo di ahmad te du si gor te du dañ mukk it di sant boromam mu ñeg ñu ngi gën lépp loo mën di def na ngay sant kay muñ fee mu ne yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu xadimu man sumaatuhu muhammad li xar baax mooy mu yaqulu abdu xadi waaye jamono bu ne bayit ba mu ko wax amaana ko waxaate ñuy ree ka bég day maxnaa mi day doon benn ba noppi ni mu ko waxee wuti dañuy dox di di nëbboo ka nabi ci lu xar baax la ci wax koo gis ci ñoom mos cagar doy na ko yaqulu lu dul doy du doy nag man laysa luy doy di doy murit mbubb daal ak tugay doy na ko abdul xadimu ahmad <laughs> fii mu ni tugay doy na ko wa rabbahu bila intihain yahmadu <laughs> fi mu ni yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu xadimu man sumaatuhu muhammadu moo bind mbindee fii bindaa la ci bind ak ñàkk ay xar baax la bokk mooy mën na ko wax fukki waaye dafay bind ak ñàkk akum koom day de ci na ngir di ko nattoo doomu aadama yoon yes lay doon ba xam na lay taxawee saa bu ko waxee lay akum koom mu doon yoon wu yes lay doon sababu jaamu yàlla mbaa sababu mooy ak ñàkk wax na ni man zanna anni ak jaamu yàlla mën naa sabab am koom mën naa ak ma jort ay nattu lay sunu borom di nattu nit abdullah ku dul jaamu yàlla wa nab danañ leen nattu ku dul jaamu yàlla mbaa nga jorte ma ku Ibn Abbas bu nga fi dafa bi siddati war raxa loo ma jorte lu dul lii yomb ak jafe suñu borom dana nattu nit ki ci yomb ak jafe dana ko nattu ci am koom wax ni fustu bi kaw nii dana ko nattu ci ak wéradi ak wéradi suñu xel na ma ci nekk araam nekk di ab jaam ak lu dagan doon nit kuy taqdima ak lu dagan di liggéey jaam yi nga xam ne nattu xol ba xam suñu borom daf jiital mu ni loolu rek ak taxele ci moom mu dellu wax ci alxuraan ne dina jox nit ki am koom waaye jubluwu ci doon xadimu dana xañ nit ki am koom it waaye jubluwu ci doye dal ko mu dellu wax ne wajjahtu wajhiya waaye nattu la nattu ilal ilahi axdimu abda hubna abdillah naa ko waaye nattu la jox ko yàlla ànd ak nag di liggéeyal nag mu ni fa jaamam bi nga xam ni mooy ibnu abd isa mubtalaahu rab naawiya nafi aqrabin wa ajnabi waaye nag ma yéene cee jariñ nee na ni mu baaxoo mooy ku ma jege saa bu ko suñu borom nattoo alal jox ko ko ab jàmbur bu ma sori jox ko xéwal ma alxadiisi wa ajal lil kutubi waaye fekk na xamagul ne mën naa wax nañ yurdihi billadi ka xidmati bada xamagul ne mën naa am loolu teraanga daal di nit ki saa boo ko suñu borom nattoo mankil moom li mu wax foofu mooy yàlla daf maa doyal la ku jortu nag ne moom loolu mu jàppee ak doyal la mën nga ko liggéeyal façon liggéey bu mel ni bii ma ko liggéey dafa doon ko xereñ te sa jortu lii nga jot dàq naa ko xamal nañ te képp ku jóg di ko liggéey rek lottu nga ci liggéey ko noonu lu ma tax xam la loolu suñu borom lam ci teg mooy kàlla déedéet mu ne déedéet ni ngeen ko jàpp fii mu ñëw ñaanam gépp it mu tënk ku ci bëgg doon loolu bu mu doon teranga la wajjih li allahumma fawqa ma urid في البر والبحر وجنبني المريض تا أريد في البر والبحر وجنبني المريض xatta akuna kon xayra abdin wa xadim nit ki mënta ñàkk xam yàlla ngir ma nekk dëgg dëgg yàlla nag ma may lu kawe li may bëgg yàlla ci jéeri ji ak ci géej gi te musal ma ci seytaane di dund ci ak ngëm sab jaam jox boppam yàlla ba nu mu dogale rek mu d'accord rek moom ci ñaan lépp lépp ki mënta ñàkk xam loolu ngir bu amee am koom du bew bu ñàkkee it du tax mu ñàkk fayda benn borom xam-xam benn woykat boo xam ne laa tax da an na li maxluqin ala talab bu la xemem tef mukk yóbbu si ngay toroxlu doomu yàlla fa inna dalika wahnun minka fi diini xaj na ñun manqué teg dina lay teg am ñu jiitu woon ci talibi mimma fi xasa muy naqari ñu nekkoon ci far yàlla dugal ay bànneex yu lu la jaxe rek ñaan ko yàlla léegi di loolu xasee am nit mën naa ñëw bëgg a doon talib Sëñ Tuubaa naa am garanté wul na loolu yee waroon inna alladi anta tarjuhu wa taamuluhu min al bariyati amul lenn lu mu teg ci kanamam lu dul mu maanaam ku teraanga yi àdduna fekk leen bàyyi mën am nit ñëw di dugg si ngir teraanga ji yaakaaram yëpp ci bàyyam la ko aj te bàyyam it amul doon doomi miskin waaye sëriñ bi yéene mooy nekk jaamu yàlla léegi kon muñ ak cant moom day ñaari jikko yoo xam ni dara ñëw ci jikko yi islaam lañ kon muñ ak cant moom de ñaari jikko yoo xam ni jikko yi islaam lañ te balaa ñu kee nekk Abdullahi xaq doon na waxtaan ak murid yi ne leen man day fokk nga meloo dañu maa bett sëriñ bi ana nu ko dunde woon yaa rabbi in aataytani fa shukru wa in manata fa ridan wa sabr boo ma joxee wëlbati ko bettaan leen ma la ñaan ak gàntu sax man wa sabr ba ma jox daal di wax ne la ñu ma bett mooy waaye ma la ñaan gànt sax ma nangu dogal boobu te muñ ko séentu ma woon picc topp ma daal di wax ne fal man wala xataa ooma lu may waaye itam may itam may may itam la ma leen bett mooy ba ñu may topp ñu may ko ak ñu xañ ko yaakaaruñu woon fépp adduna ci biirum aadama wax na sax yàlla topp saani yaakaaruñu woon fépp jinni naw insaani ma ñaan na nga gàntal ma sax moo ma gën a xam rafetal gu jóge ci nit mbaa mu jóge ci malaayka daal di waaye ñoom itam dañu ma bettewaat nag mooy dañoo ba fàtte yàlla ma leen taxoon moom mu ñaan suñu borom mu gàntal ko moo ko daal may mooy dootuma seexal li kaw ma ci man ku jub rek dafay far ay ayib may far ay ñaawte waaye lay doon ci digganteem ak borom hmm. wa kaw ni ihsaani ku jub mën ci sa jiba kon nit ñi ba tey rafetal guñ rafetal jëm ci yow. mën naa doon kiiraay sax sa diggante yow. nekk rafetal guñ rafetal jëm sax sa diggante yow. kas sa diggante ngir mën ngaa jëye jëm ci ñoom ba loolu doon lin nabi waaye yàlla ñaan gi nga gàmtu nga gën dafay mën naa doon loo xam ni laa ilaha illallah gën naa leeral ci bayit wi mu wax ne kas bi ya tawxiidun ba ca dolli ko ci ma xamante ne mooy dëddu dëddu alayhi taslim moy tawhid ba ca dolli ko ci maqaamam joxe mooy dëgg ginnaaw bi ma ko ba yàlla di yàlla ko laaj ko laaj nan lay def ba nit yàlla bëgg ma nit ñi bëgg ma mu ko bo dëddoo àdduna yàlla bëgg de loolu wax ne diine ya lañ yor bo ko tawhidu ilahi naasi sama diine doomu dama moy wéetal yàlla borom nit ñi yàlla moy ko xamni sunnatul ma lépp nga aj ko ci ma ko aj rek lepp ci bi sunnatil maa fi dunya yuhibbuka allah ànd ak sunnat fi ma inda yuhibbuka an-nas kon mboolem xasida yi li mu bind lépp ci njaareem ji rek génnul ñaari baat yooyu daan defal muy ñaari di ko ko andil baatub laa ilaha illallah junjari di ko andil waaye ñaari fan la ci jëfandikoo xam Muhammad Rasulullah booba de bu bëggoon ay bëri junjar ñëw di ko firi si ci jëf waaye nam jàpp la ne ci mu jàpp duñ dem ba ci mu yëbit moo tax daanaka xasida gu mu doon bu koy tàmbali bu ne bismillahi rahmani rahim sàmmoonte gi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu sëriñ Bachir mi ngi nettali ne am na koo xam dafa bu ne bu bu sant yàlla rek julli ci andi bu ñëw fii ci yow sëriñ bi gëstu ko ñu ne kaw na ko yabin adal mu joxe ndigal nañ ko maa jëm na daal ni am te diirub fi liggéey nañ ko xaay ma jox ko sax daal ni ahmad rabbi mu war a toll ñu jox ko sax ala kitaabihi neen nag lu mel nii bu leen nangoo te mu di fi dugg xam dañ ko sirna dañ leen wax ni leen daray jàmbur rek bu leen daray jàmbur ci teg li ma jublu wax lépp rek mooy saabu saabu yi moom la am njabootam daan dafay dal di julli ci yonente bi ba rek dafay amee maanaam laa euh, mu da mu teg dara loo xam ma minal mu jaxe la lool da nga gis xaalis bi minal law xel max ñëw lay jar ci waaye mu jafe la lool te nga gis xaalis bi bëgg ngeen dox xasida googu boo ko xoolee ñooñu nag def na ne sëriñ bi leen defal mi ngi tàmbalee fi nii li ma leen wan ni leen ma leen di leeral ak laabir la hamdun wa shukrun wa ni leen yéen a ñëw di topp loo xam ne sëriñ Mat Lamin Jóob te ngeen gis xaalis bi di natt dugg ak a génn te mënu leen cee jot eh, ci minatul miskiya ngeen gis xaalis bi di dugg ak a génn te mënu leen cee jot di wax ni benn bis mun leen sëriñ Hamdou damaa nekk ci biram bi ñu doon binde lépp di sottiku ni xalaat te këram këram nakiir ba sëñ bi benn bis na ko da xanaa da nga jaaxle ndax ba def ci na kër ga demee ak ñi nga gis sama xel waaye génnewuma ko mu ne ko waaw mu ne ko bayit ba mooy li ma wax ci sama xel ci sañ jëfandikoo ci laa bëgg ataani nga di ci jëfandikoo tur betil malakaani sëriñ Saliou wax ñoo ñu ni leen nag loolee nag moo fi jógul ba fi ñu toll nii li fii sotti li muy bari bari lu néew laa ci sañuy jëfandikoo te lu néew loolee ci laa bëgg sama daara yi di jëfandikoo dafa wax ne dama xalaat loolu ma war a def dara bayit woowu loo xam ne alal la koy jënd mu ñu gis alal ji muy sotti ko te du ci nee na booba mi ngi taw ndax lu ci taw bi lan lan néew la ma sa ñëw ci laa bëgg sama doom ñu sëriñ bi nee na dafa soxla kenn ci yéen nee na bi mu ko waxee ka féeteeg bunt ba rek moo jóg dem wuj waaw bu ko defee muy ragal yàlla ak bëgg ko ragal yàlla ni ko lii mooy tontul ñaari ma yaakaar ko yaakaar ji mooy loolu sëñ bi wax léegi ni man xuka afdalu min al ihsaani waaye li ma jublu wax mooy wala ba ci yaakaar ak ragal moom di waaye li ma jublu wax mooy ba ci xasit bu dee bëgg gi yàlla it بوتي امي ول لا اله الا الله دا فاي امي معنى محمد رسول الله با اغتي مو سانك من الله الله دل على كون الليل الحبه الا ارى من احبني الباقي فلا الاقي غير محمد محمد مغنم بدو ما دجي كوما ba ci tubaab yi sax bi muy bi mu nekkee seen biir ci am ko xam ne nekk la ilaha illallah gee rasulullah mu mel ni kon jikko yooyu nag ci ne fukki bayit la ki jafandoo dëgg te am muhammadun rasulullah mel ni kon jikko yooyu nag léegi mu seexale leen bu ci ne fukki bayit ak ñeent ma wax moom mooy ligne am ba mu mel ni kon defaru xol googu ak ruubu googu mooy jeexital ci ay cëram jeexital ci aw làmmiñam ba du ma xol googu ak ruubu sell mooy jeexital ci ay cëram yu ko suñu borom may jeexital ci aw làmmiñam ba du ma woon mën a waxat lu dëgg garab yooyu jeexital ci ab jisam ba du ci xool lu aram mooy jeexital ci ay ko ba du ci nangoo déglu aram ci ak ram mooy jeexital ak njëriñam ëllëg ak yaakaar gu mu fi yaakaar lépp ay tànkam ba du ci dox meññetu fis ci meññat mu loolu yi di ci la meññee ni nga xamee ne yonente bi sallallahu lu mu andi ci àdduna yaa ngi koy def di julli lépp luy njariñ lu ñu seen ci moom ëllëg te sax feeñul ci say jëflante ak nit ni abdullahi wa rasuluhu kuñ jox nekk bu nekk di jaamu bi yàlla di ab di ndawam ñu ci sëriñ Tuubaa ci ñaari baat yi la bàyyi ko muy nekk abdullahi nekk yoon tërre di dawal waaye agago nag li fekk jëflante bi bi loolu amee li feeñul ci say cër ba feeñ ci sa jëfante rek lépp donte yaa ngi def léppam rek xam yaa ngi julli ci ñaari baat na nga xam ne fa nga jëm àgg ko kon fa nga jëm boo fa àggoon dafay defar say jikko bom feeñ sa diggante ndax fa nga jëm boo fa àggoon dafay defar sa jikko jàngat lan bom feeñ sa diggante ak ay baat ko fu mu jëm lay junj la ñu seet jaar ci moyens yooyu ma wax nan lanu ci jariñoo ñu ba jeexi naa mu feeñ ci ay ci doon ba noppi ba meññ moom mu meññ ko te muy lim am lépp fii la ko jëlee a dund léegi nun kon nan la def mu meññ ko te muy lan mooy loolu ak nan lañ cee dox moo mën a dund abdullahi xam waxaat yi mu mu mel ni kon ibaad mi ngi jóge ci yàlla ibaad dafay dig ibaad jaamu yàlla yooyu dox diggante jaamu yàlla mooy dayoo bi nga xam ne borom nit ñi shaytaani rajim jëf leen ci bu rafet mooy dayoo sëriñ bi kat dañuy wax ne rabbi a'uuzu bika yoroon na ci jikko yu rafet akub jëflante loo xam ne loola dong war naa mën a taxawal tariixa bi ci loolu sax mbirum bat ñaar bi mu amee tawféex yi gëm suñu la ko xàmmee woon àq yàlla ak àq yonante bi ba jamono bu ne yàlla di yàlla yonante bi di yonante jaamu mag ñi mu a yarit mooy trop trop moo danañ xam yàlla xam yonante bi xam suñu mbay jaxat nga xam ne wéy am na benn sa jëmm wooy foo jëm yemukaay torox ngir jëm yàlla ba tax ñu gëm la ba jox la mbir eh, ci jaamu yàlla la ñuy jëfandikoo ba ca waay bi topp lépp topp mooy jaxasiwul dara ak dara shaytaan rajim sëriñ bi daan wax ni am na benn borom xam xaadim al ci ni yàlla ku ñuy jaam taw wasiila dañ koy liggéey ak mel ni kon topp koy mamzujatun bil mahabbatin xabbi di liggéeyal Sëriñ Tuubaa njàmbaar yi koy def waaye dafay andi lu leen woon ak yaa xos rabbi israh li jamono jaamu koo xam ne nu andil ak yaafas soo jàmbaari seen tubaab nga xam ne waaye mag ñoo ñedde ñoom njàmbaari seen tubaab force andil leen ak yaafas ak njàmbaari lu mel ni loi bu état bi tëral rek ni def mel ni loi bu état bi tëral rek ni def leen nekkutoon di bokk ci ñooñu tax suñu borom di wax ni loolu dafa soo jaamu naa si may yaa bu dul laa si laa xam sama borom moom day bëgg amul yàlla wax bàyyi la nga dem a jaamu di ko jaamu dafa wax ne wala sa da nga a jaamu wax ne jaamu wax ni bu dee liggéey bi mu daan liggéey ñaa ngi ni suma bu liful kiyama liggéeyal la am doon looy xalaat ni loolu sax boobaa lam yuy ji bil xidmata xubbul jadi maasoon bàyyi joxida nuur a sujjati loolu mooy liggéey bi may liggéey yoon ibaada bëgg wóor sa xarit taatun taw waaye bëgg ko moom yonente bi maam zuujatun bi mahabbati aani li ixdaasuha maarifatun yaani ila mati nabi xubbu li koy li koy fonde yi moom daana mébét sax xama ko bay mébét ni bu fekkee naa bokk ci ña koy liggéey yaa mu ci ëpp solo liggéey liggéey liggéey liggéey ko xam ne laxa ci laxa ci laxa ci ko ñu tàmbalee na dem leen woor ñu dem woor moom li muy wax mooy yal naa bokk ci ña ko da nga leen di xamal lan mooy jëm gannaaw lan mooy al ñi lan mooy sigal jaamu yàlla gu ne nga xamal ko la muy tekki ba mu gëm ko ci xolam bëggal ko boppam daal def kooku mooy boo defee saa bu demee ba wéet di ko def rek mi ngi jaamu yàlla mooy jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci dafa wax ne mu xeetu asfahamaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam meññet man ci jëlewaat nag mooy dëgg dëgg day mujj nga taxaw taxawaayu yàlla ci kaw suuf topp lay doon yoo xam ne yàlla dafa wax ci xadis benn xadisul xudsi bi man aada li waliyan faqad dañ koy def it da nga caa am bànneexu xol boo koy def mu naqari. aada li waliyan faqad da nga koy def it da nga caa am bànneexu xol sama wali sama naqari ma jege noonu képp ku ma ko noonu rek. déclaré naa la guerre nga ca des la ca desin mooy ak xama koy lal waaye noonu loo xam ne gurgur rek ñu la gëmal def bu manqué rek jaam jaam du ma jaam loolu du ma jaamoo lu ma gënal li ma faratal ci wax na waaye ni walaa ysalu abdi yataxarrabu ilayya bi nawaafil hatta uhibba ma di ko sant ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa bi ma woo ma jaamoo ay nawaafil ba ma bëgg ni ma sëb cër ga fa isa ahbabtuhu ndax ka ca ab cërëb nekkoon du ci yëngu waaw ginnaaw ginnaaw far mbaa bu ci yëngu walaay sax saa boo ci yëngutu ba noppi mu neex la nga xam waaye mu demee ba bëgg ko maa ngi doon noppam bi muy dégg muy ko ca ab cëram du ci yëngu bi maa ngi doon mbaa bu ca yëngutu it du saa boo ci yëngu loxo bi muy neex la na nga xam ne daj lahu lati yam si biha bi muy dox wala in saa la nii la on sa yan jaamu di maqaama mu kawe moo xam ni lu mu sàkku ci man ma jox tabaa ngay tabaa ngay jàng lu ma musul it moo xam ni loolu tabaa ngay loolu lépp tabaa ngay jàng moo tax sëriñ bi rek boo xamee xadis boobu du la jaaxal wala ñu wax baara sani bira saabu ñu baari sul mun tax képp kuy li toog man yaa ngi li toog yàlla kii doomi sëñ du la jaaxal bu fekkee dégg nga mu ne li nga xam muy dëgg mooy mooy fekkee dégg nga kii mooy bëgg na mu ne li nga kon loolu ñu ne kii mooy na mooy dëgg nangamu sëriñ Tuubaa bu ñu wax rek nga nekk foofu teraanga la ci jëmm jooju na nga ca war su nit ak saabu xob yu baax wér ko ci yàlla ñu ne Abdullahi léegi teraanga waaye loolu sëriñ bi wax teraanga féetewul ay noonu te loolu misaal mi ci képp ku ma xool dama waaye misaal mi nga mu président bi su si moom rek kenn yàlla dëgg la dem ba doon tëlee teg ak fu ko nit ñi teg ci seen xol ak yëg-yëg bi ci am du nekk ci yoon loolu la ko dem ba ko gis xam ne yàlla ci omar walilahi almasul ala yàlla koo xam ne naka noonu kon ñooy kon ñuy itam lañ ci jël ñoom mooy laaj bi nga xam ne mooy doon jëmm ci jëmm yàlla lay waxee teraanga firi ko bu nekk itam mel ni loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax suñu yàlla moo ko wax daa taddauni yowma alxiyaam illa bi yaa abdu yaa ayuha alladina amanu إذا لقيتم الذين فإنه أشرف أسماء ay nitam di jóg digal julli lii ni leen bu ana ki nga xam ne ki nga xam ne biir tey seen biir moom ne Serigne Touba nee na foofu fu ko fa ko ne nag na nga xam ne féete doonoon nag ba ci boo am na ñoo xam ne ñuy tuddee bi ci des mooy bi mu ko jëlee muy rañaan li ñuy tuddee al fikri des des leen tudd dinañ leen leen tànc tànc di leen tànc tànc ba danañ àgg ci ne man li nga jamono bu ne li nga nekk ba ca des mooy am na ñooñ fi yonent bi taxawee di ñaan yàlla jógee nu mu gën a gaawee te bàyyi waaye loolu lépp sax tekkiwul ni ñooñee di la génne ci li nga nekk dañoo jàpp ni lañ nekk dafa gën ñooy yi gën a kawe ci diggante am na ñu jàpp loolu waaye ñu bari nag dañ jàpp xam nañ ni baaxul waaye li ñuy wax bukki bu lakk xam baatu morom dañuy xam ne lañ nekk wéru ñu bëgg kenn bañ a nekk ci lu wér ñu xam baatu am na Abdullahi lañ lay li mu teg léegi Xaadimu Rasuul lu ci ne rek ma xam mu kawe la mu mel ni kon mooy wéeru gi mu wéeru ci maqaam mu kawe wa Xaadimu Rasuul bi maqaam mu kawe la ci ñaari misaal misaal yi ma jox loon léegi ni ak xidma maanaam Sëriñ Tuubaa mooy jëf bu ko defee Allah bu ko defee nag jaamu jaamu kooku nag rasulullah bala mu nit ñi nag dañoo baaxoo bu ñuy xamle wala boog